dali nay jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo woppi coronavirus moom ba léegi nii ma ngi wéy di yokk ci réewum Sénégal di fi indi ay jafe-jafe ak i musiba ma ba kumba ki giraawali yu doy war waaye nag dafa mel ni mesure yi nga xamante ni état bu Sénégal maanaam jël na ko dafa diis ci askanu Sénégal ba mënatuñu koo dékku yéenekaay groupe promo consulting bi ci xëlim ak Assane Samb ne nag confinement bi nga xam ne moom la ñu nekk maanaam état d'urgence bi dañu koy daal di teggi waaw wala déet en tout cas li am ba des na ay mesures yoo xamante ni état bu Sénégal jël na ko bis bu si delloo ginnaaw daal loolee xaru dëggantaan la ubbi nag li nga xam ne mooy frontières yi lu mën a nekk la waaye nag boobaa képp koo xamante ni wàcc nga ci réew mi maanaam dañu lay daal di quarantaine lu jëm ci wàllum transport interurbain bi loolu ba léegi nii dañu koo war a daal di dakkal takk masque yi moom état bu Sénégal waru see deltu ginnaawa su dee nag ubbi jumaa yeeg jàkk yi loolee lu war la ndax jamono ji ñi nga xam ne ñoo koy sàkku daat na ñuy bëri loola nag ci ab demande sociale ci la jëm waaye nag ñu jël si ay ay ya lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ci ay cas communautaire daan nay am ci réew mi xam ngeen ne loolee musiba ma ba kumba mënu koo weesu ñuy wax ne xale yi dañu leen di jël di leen yóbbu ci école yi yéen kaay gi mu ñu xamal naan ñu Macky Sall nag jamono ji neexul ba neexul waaye nag ma ngi si ay jafe-jafe yi nee na ndax mbir mi ak fi mu toll ana nan la koy lijjante yéen kaay gi de la turbine mu ñu xamal naan ñu waajuru xale yi ak ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum njàng njàngale mi ñoom mënuñoo dégg benn yoon ñuy wax ne xale yi dañuy jàngi ñaari fan ci weeru juin bi nga xam ne moom la ñu daal di dëgmala yéen a kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal nañu nag jàngoroy coronavirus neexul ba neexul waaye nag ma ngi def ay njombe ci réewum Sénégal ndax lu toll si juróomi nit daanakay rey ci lu toll ci 48 heures maanaam ñaari fana la turbine yéen a moom la mu gis mooy juróom benn ci ay nit libération yéen a kaay na covid 19 bi daan nay rey lu toll ci fukki nit ci réewum Sénégal ci semaine bi yéen a kaay réew mi quotidien nee na lu toll ci junni ci ay nit jamono ji ñoo ngi ci lalu hôpital yi daal di tëdd am na nag juróom ñaar ñoo xamante ni ay cas maanaam seen wàllum wér gi yaram jamono ji dafa daal di gëll góose vox populi na juróomi nit ñi nga xamante ni faatu nañ ci 48 heures yi ñeent ñi Dakar la ñu dëkk kenn ki Touba lu toll si juróom-ñetti junni yu fekk juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ci ay nit yoo xamante ni jamono ji dañu leen a quarantaine yéen kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal lañu ni ki suba ci talaata ji njiitu réew mi di président Macky Sall dina daal wax aku askanama ci woppi fa ñu jëm mooy ubbi li nga xamante ni mooy bërëbu jaamukaay yàlla yi yéen kaay gi di Les Échos ñu xalif bu lew na ñaseen la mu xam ne nag nee na kenn munu koo tere julli ajjuma yéen kaay gi de laas ñu fekk fa moom xalifa bu lew na ñaseen nee na nag daat nay pare ngir dem ci kaso yéen kaay groupe Promo Consulting bi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Ngoone Ndoy mi nga xam ne ay jamono nekkoon na ministre ci jamonoy Abdoulaye Wade moom nag bokk si ñuy xeex ngir nag sénégalais yi nga xam ne ñoo faatu bitim réew ñu andi leen ci réew mi daal leen fiy denc ba taxoon ñu kalaame ji mbir mi fa mbaxana doone benn cour suprême waaye nag seen càkkuteef dañ leen daal di mujjee gàntal moom mu jàpp na loole nag mbirum discrimination dëggantaan la waaye nag seenu xeex maanaam ñàkk guñu ko benn yoon ndax nag njiitu réew mi di président Macky sal ñoo koy xaar ci mbir mi yéen a kaay gii mu ñu xamal naa ñu lu toll ci quatre-vingt-dix-neuf sénégalais yoo xam ne faatu nañ bitim réew maanaam juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti nit Toussaint Manga moom nag la mu xamle nee na force Covid 19 bi comité de suivi bi amoon na ab document boo xamante ni defaroon nañ ko bam ne cook daal di lu toll ci cent sept millions ngir nag jox ko ñi nga xamante ni ñooy membre yi maanaam Père Thiema les échos moom Toussaint Manga ne loole nag maanaam kenn munu koo weddi yéen a kaay gii di réew mi quotidien na mbir mi nag soo moytuwulee dina jaaxal sénégalais yu baree bari frontières yi tëj nañu ko waaye nag avion yi daal ñoo ngi jóge France di ñëw ci Sénégal loole nag jaaxal nañu baree bari journal bi na bu mu leen jaaxal gouvernement bu France ñoom nag ñoo ko sàkku ci Sénégal journal bi ne en tout cas jaaba jonge bi dem beeg dikk bi ci roppalaan yi daal maanaam mel ni ni tulleeg a kaay gii di grand place mu ñu xamalaan xam ne nag ñooy waa CDEPS mooy si ñoom nag daan nañu tuumaal ministre bi ñu dénk wàllum communication gi di Ablaye Diop ci ay nduxu maanaam détournement jalgati koppar yi nga xamante ni mooy aide à la presse bi ndax ñoom jàpp nañ ne anam bi ñu ko séddalee anam bu jaarul yoon la jox nañ ñoo xamante ni kenn waru leen a daal di jox ñoom nag li nga xam ne moom la ñuy daal di sàkku mooy li sub ñi nga xam ne ñoo am ak ñaata la ñu am ak lan moo des ci xaalis bi yéen a kaay gii de Le Soleil mu ñu xamal naa ne organisation des nations unies moom nag daat nay jàppale réewum Sénégal lu toll ci cent vingt milliards stade yéen a kaay ñu xamal naa ne Liverpool yóbbu jamono ji nag ñoom dañoo taxaw temm ngir nag téye Sadio maane ndax nag signal nañ ko ab contrat boo xamante ni mën nañ koo tuddee sax contrat à vie ndax nag dinañ yéex a gis ab club boo xamante ni dina fay saajo maane li ko Liverpool jamono ji di fay.